mbokki Leewtoo TV comme ni ngeen ko xamee ah renouvellement licence jot na au niveau di CNC promoteur yaa ngi nii toog Gibson production kële mooy Mohamed Diop kii moo tëgg euh, jadli jamteeri combat bu nar a metti Gibson production moom xam ngeen ko du fi wàcc bees moom yàgg na ci biir ak ay lu netam Bamba itam xam ngeen ko Bamba fay <laughs> ñu koy nuyu di ko ziar yàgg ki sa mbokkum taalibe la Bamba mu Cheikh Béthio Thioune mu Serigne Saliou yàgg maar mu Cheikh Béthio Abdoulaat Ndiaye ngi moom tamit yaakaar naa moom it ànd ak ñoom moom mu ngi nii toog bàyyi laat di menacer Ndoye moo représenté sëñ Modou Niang Ndoye bu taay si nga kii moo tëgg soq yàgg maar soq mañ fekkoon Gambia moo gàmmu géey combat bu critique ngay gis bu bu saison bu ubbee. kon gars yi gis ngeen gars yi ci biir CNG bi ñuy renouveler seen ay licence ñun yaa ngi dégg euh, ma jëkki ci nga xam ne nii moom mooy laat laat maa ngi lay bëgg di la ziar. Babacar ñu ngi lay fay. CNG ubbi démb ci altine ji. tey talaata ngeen ñu renouveler seen ay licence lu waral gaawtu la wala bëggateel dugg ci affaire yi la. waaw d'abord sant yàlla di julli ci yonent bi di wax alhamdulilah rabbil alamin parce que ñi fi taxaw ñëpp kenn ku ci ne jël nga sa alal jox ko ay xale te mënuñ ko investir ci dara donc boo jëlee sa la nga am jox ko xale yi. xale yi toog di la xaar ngeen leen damay tëgg damay war a teel a tëgg yoon la bu CNG du lutte wootee kenn waru la caa jëkk ndax CNG pare na li mu waroon def lépp def na ko démb lañ ko waroon def la première d'ailleurs fekk directeur administratif bi xawoon génnoon ku ne xam ne di leen di day juste ak moom nekk loon Dakar donc loolu moo waral ñun ñëpp ñu ñëwandoo ki ci jiitu nag mooy sunu doyen Serigne Modou Niang bu nga xam ne moom teel na lancé boppam ni vingt journée la bëgg a def d'ailleurs Ndoye ko représenté ngi nii notre frère Bamba mi ngi nii Gibson production duñ la présenté Mohamed Diop a ngi nii vraiment ñoom Baba gars yi ñoom di Moustapha Abba gars yëpp a ngi fi waa di ñaan daal jàmm ci réew mi ñi fi nekk ñëpp dañu pare bu leen seen joxee tat ñu pare pour jàpp dat suba pour dem liggéey donc daal nit boo paree ca la ngay def yaakaar naa kenn waru la cee soññ di la gërëm aussi Babacar di gërëm waa Sénégal di nuyu ñëpp di kontaan ci ñëpp ndax gars yi vraiment pare nañu daal. am na solo Bamba maa ngi lay ziar. suñu baax maa ngi lay ziar baax ba Bamba Faye Bamba production yow tamit kon renouvelé nga sa licence actuellement nii. waaw ñun ñëw nañu renouvelé seen licence donc euh, di préparer saison bi. am nañu ay combat yu donc li ñuy xaar euh, pour le moment bi nga xam ne moom c'est déjà ok mooy euh, góor gi étudiant ak euh, booy Balde. ak waaw donc ñu ngi si yeneen donc di xaar rek saison bi ñu joxe date ñu ñëw liggéey. Bamba ñaata suñu ñu bëgg a tëgg ren incha allah. waaw xam nga man moom du ma faral di wax euh, li may li may tëggee euh, samay journée je crois que comme euh, bële passé comme ni ma ko waxee si presse yu bëri avant may démissionner si association bi nee naa leen que ne sama saison bi ma mujj a tëgg c' quatre journées donc ma engagé woon quatre vingt lutteurs donc ren ñaan naa yàlla def lu ëpp loolu parce toog naa reculer naa. waxoon naa la kon nee naa déwén naa ñëw donc su ma ñëwee tamit def naa damay indi leneen lu bees daal waaw. am na solo kontaan ci yow. Jibson maa ngi lay fay naa la. Jibson. sa sa kàb rafet na de. <laughs> oui ça va alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax tey dañoo ñëwoon fii ci CNCR la wane si suñuy licence pour préparer saison déwén ci kàttanug yàlla. bëgg saison bu neex incha allah. daaw ñaata journée nga tëggoon yow. daaw tëgg naa ñaari journée. ren nga fas yéene tëgg ñaata. waaw taxawal naa Brise de Mer 2 ak Bille de maa ngi euh, négocier ak yeneen mbër pour tëgg leen mais incha allah lu ci man di am rek dinaa ci waxtaan ak yow. Hmm. amul solo gan gi. Mouhamed Diop. bu Géejawaay wala du noonu. waaw bu Géejawaay waaw. yow moom combat bi nga tëgg moom itamit day gars yi dafa mel ni dañ ko doon rêvé. Jet Li ak Diam Terry. loolu doy na war de Mouhamed ginnaaw bu ñu la dalalee wax la ahlan wa sahlan. waaw mm-hmm. ah, Babacar ñoo ngi lay fay waaw di wax kon ni nga ko gisee rek lépp gars yi la ñoom ñoom mooy poussé tam comme gan laa ñoom ñooy kilifa yi mm-hmm. man seen ginnaaw rek laay topp suñ ma nee defal lii noonu laay def suñ ma nee bàyyi lii tamit mu bàyyi. Euh, ñaata soxna nga fas yéene tëgg bu dee neex na suñu borom. waaw pour l'instant benn lañu amagum. Mm-hmm. leneen yi moom xam naa dañ si travail waxtaan seeg kilifa yi rek. suñu waxee rek ñun moom pare nañ quoi. mais combat bi nga tëgg ku la ko loqatil jët li ba ak kële euh, nu mu tudd waa yi. waaw ñun amaatu ay amateur lañ tamit daan nañ ñëw stade di seetaan mais ku tëgg moom dinaa la wax kan la. kañ nga ma koy wax. non suñ ma wax léegi non fin saison bi ah. non fin saison bi dinaa la wax diw laata fa jaar. non fin saison bi incha allah. laat jinax la daa ñu ñag de. maa ngi lay béggee te des fois du ko jàpp jinaax <laughs> de noonu lay doxe baaba jaw moom mooy boroom càmm production moom itam combat bi mu tëgg yaakaar na yi mu tëgg sax laay wax ndax ki nga xam ne nii mooy gàmmu géey soq soq fekk nañ ko gàmm ci liggéey bu intense des na Mbagnick Kaïré ak Jacob Balde loolu rek doy na Baba maa lay bëggee di la fay nañ la Baba sant yàlla julli si yonent bi sant suma yaay bu baax xam nga nuyu gars yi teew fii yëpp Bamba Abdou Lahat Gibson Mohamed ga waaw ñu sama ñi am di Aba mais ñi sumay grand lan ñu ñooma teete yow itam combat yi nga tëgg doy na waar de et puis tamit lu ne sax ginnaaw parce que boobu ba tey ñaata combat nga taxawalagu mën naa ay quatre ans cinq ah. hmm. loolu la ci ginnaaw Baba Diaw liggéey liggéey donc fi nekk nii xam nga li nga jotagoo génn ci ci xaalis <laughs> non xam nga non baaba loolu mënta ne dégg nga gars yi naan noonu. <laughs> mais ñaata suur nga fas yéene tëgg kon incha allah. boom bëgg naa cinq. cinq jours waaw. amaana tamit suñu demee ba si biir. suñu boobaa mais nii nii moom bëgg nañ cinq. cinq na solo. waaw bi xam nga di gërëm Abdoulaye Ndiaye. lépp moom la xam di sant Bamba. Euh, di pour muy leer moom moom wax ji bëri sax mënoon mu. waaw xam nga gars yi ma force pour ma wax. maa si ginnaaw Bamba. jeex na. am na solo. Ndoye. Ndoye ngi nii kii moo fi représenté sëñ Modou Niang ah moom nag sëñ Modou mooy kilifa ak mbër yi euh, kilifa ak promoteur yi sax laay wax man naa ne ci côté journée ndax li muy tëgg macha allah bari na Ndoye maa ngi lay nuyu di la maa ngi sant ndax maa ngi sant Lamine. tey boo gisee ñu ñoo fi tey jii dañ fi ñëw uniquement pour dagg si licence man sax am habitude di di wax si ay tele si yenn kii nii quoi waaw franchement man dama préféré liggéey dans l'ombre daal waaw franchement. ren yow yaa nekk mu ñëw production. ñaar ban combat ngeen taxawal wala ñaata combat ngeen taxawal. taxawagum naa fu mu nekk quatre grands combats espoir. waaw taxawal naa petit baboy laay ibbee incha allah ah, ah, hôpital bu nekkee dara jox nañ ko damay confirmer le 3 bi. le 3 waaw ay laay ubbi incha allah waaw si laa bëgg a ubbi quoi waaw non waaw après maa juste avant avant avant gàmmu daal Petit Ba Boy ak euh, benn boobu kii quoi bu euh, kii Cheikh Mbaba benn double V karate maa taxawal maa taxawal carrière saakis boobu Boy si taxawal tim euh, musique musique tim combat ma maa ko taxawal quoi waaw ak Cheikh si ba jamono ak euh, Mori Cargo waaw ñaata soxla ngeen fa seetlu teg mu ñaaw production. bon si kattan yàlla daal bu dee jàmm rek mu moom franchement bu ñu def vingt journée. waaw na solo waaw parce que loolu la ñu signé ñaata lañ ngeen koy daggee fii au niveau de CNCRM. am nay soppiku wala. déedéet mais trois cent mille la. ku jëlee million jox ko trois cent mille méttiwul pour loolu du amul danger. Mm-hmm. mu nekkoon ay temps cinq cent mille trois cent mille waaw. laat buñ ko gisee parce que yow menacé nga da nga dagg licence promoteur pour laat Ndiaye wala koo daggal tey licence yow. no non non man dagguma licence pour ménager ménage <laughs> ménager egg seegul. non licence Codé Dieye production. Ah, nga daggal yow. Mm, maa ngi dagg Codé Dieye mm. mais kontaan nañ bàyyi laat ñi fi ne ñëpp bëgg nañ ci ñoom di nuyu ay ñoom Baye Ndiaye. Abdou Aziz Ndiaye di nuyu notre frère Dieye nekku fi di sant suñu frères yi nag vraiment ñi ñëpp dañu ñëw pour liggéey yaakaar naa ni di ñaan ci côté CNG bi rek. yëf yi mën a gaaw ñu avancé ak date yi gars yi mën a liggéey ko Sénégal jëm kanam di ñaanal ñëpp jàmm nag. man maa gën a bég ci yow. ndaanaanu ndaanaan. <laughs>